asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nuyu nañ leen ziar leen dina wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu leen di baaxee fii ci grande mosquée bu Touba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 sant yàlla bu baax am nañ ci xaas kii bi yaatu na lool mooy foo mën a nekk te sa la sa la sa yéene dina sa poussé loo ci baax yéen da bi ndax ñi ko ñi ko sañ ko bëggee nii yoon war koo doxee war ko dundee lépp alhamdulilah am ngeen ci xaas donc ñëpp ko bëgg.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 di kenn ci kilifa yi nga xam ne mooy ñooy opérateur économique yu Touba am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu ànd teewlu ko. moom li ko sabab sëñ bi maanaam euh, depuis 2005 la woon euh, ci li may fàttaliku Serigne Ahmadou Rafael moom sëñ Fallu ak sëñ Cheikh Awa Balla moom sëñ Fallu ak euh, sëriñ Cheikh Oumy.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 Euh, di yeesalaat kon sunu cant ak di feddali sunu laxasaay ci toolu sëñ ndax boo amee ndigal lu toll nii dundal sëru Ramadan te xam nañ ne sëñ fonk gi mu ko fonk euh, bu ma fàttalee rek kaddu yi ñu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, yal nañ ko yàlla fayal la mu waxoon nee na weer wi nga xam ne mooy weeru koor bi mujj defee fii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 la